daara ju kawe ji di université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima ndongo yi fa nekk to di jàngee ci département sciences et techniques de l'élevage di STE jamono ji ñuy wax ak yéen dey ñu ngi si ab grève bu ñu fas yéenewul bàyyi li fekk amuñu ay saafara ci seeni tawat gannaaw ba ñu xàppatee 72 heures de grève ne duñ fas xànc ak morom ma commencé woon que le 5 mais bi la ñu génn mu mel ni ki ab tànqam lu da am si mbir mi ñu dàbbalewaat yeneen 72 heures yu ñu mën a yeesalaat le 9 mai bi la ñu weesu ñoom ndongo yi le nag lii seen njàmbat te ñu dëxañ ko ci ab kayit mën nañ si jàng lenn lile mooy ñu di leen benn laboratin ak moniteur ngir mu jàppale leen ci wàllum pratique bi lu jëm ci wàllum retard administratif yi ndongo yi di sàkku ñu wuta leen ab secrétaire ngir mu mën a jàppale chef de département bi nga xam ne moom sax day day joxe ay cours ba léegi ci yële salle de classe bokk na ci seen ñaxtu ñoom ndongo yi le ñu jox leen seen note examen yi ak PV de délibération yi ca nu mu gën a gaawee rawatina bu premier semestre promo 5 bi nga xam ne jamono ji wax ak yéen de ñu ngi licence ba léegi te li ñuy sàkku si kilifa yi de ñu def ko bala la 31 mai bi la ñu jëm wàllum rappel de bourse année 2022 2023 si ñenn si ñoom waaye ñu defal leen benn masse spécifique boo xam ne pour département bi la nga xam ne ku am licence mën a continuer seen jàng bokk na ci li ñuy sàkku ci kilifa yi bu ñu sukkandikoo ci seen communiqué bi lépp luy activité pédagogique dakkandil nañu ko ci biir département bi ba jëmi jamono ba noppi di sàkku si ñëpp ñu takk ay yu xonq ngir wane seer naqar ci bees bi ñu war a amal lundi le 13 mai foofee ca biir campus bu Kaffrine